léegi nañ ci euh, ni ngeen resté scotché au programme de Feeling Dakar rawatina bi la émission di topp ka on va continuer toujours en politique en parlant de Ousmane Sonko euh, grand journaliste chevronné nommé de son vrai nom euh, Pape Alé Niang nous a donné des révélations ci Ousmane Sonko nee na il vomit ba sax day commencé perte li nga xam ni moom moo di connaissance moom taskatu xibaar bi taskatu xibaar bi di Alé Niang moom moo ñu ko xamal di wax que ni kii di Ousmane Sonko ba léegi nii feebar baa ngi koy gën di sonal ma ngay wëccu waaye ba léegi perte connaissance pour perte connaissance bi ñuy wax ah, doon na loo xam ne c'est avéré parce que Ousmane Sonko ba léegi il souffre ah, Jimbori wér-gu-yaram Ousmane Sonko dem nañ ba taskatu xibaar bii nga xam ne eh, Pape Alé Niang lay wuyoo te information bu mu joxe ci xibaar mhm. ah, ñëpp ni dëgg la parce que moom moo toll noonu ci réew mi wax nañu que ni Ousmane Sonko feebaram ma ngay métti ba léegi ndax ma ngay wëccu te connaissance am daf koy commencer di di perte aussi l'heure est grave Jimbori mhm. maa ngi nuyu Dolly sama xarit quoi. Ah. Dolly maa ngi lay nuyu bu baax. Dolly waaw Dolly ga euh, dëkk Angleterre. dama lay wax benn affaire. Mhm. kii euh, Diagnard. affaire Ousmane Sonko nii. Mhm. Euh, li Pape Alé ñaa wax lu yomb laa la ciy wax. kii Diagnard. Mhm. yaay jàmme ku ko génne gàmmi. yaay ko génne gàmmi. waaw. askan wi de ak nguur. kan moo dem bokk ci xeex bi génne ko gàmmi. son excellence président Macky Sall. yaa jaame lan la def. jàpp naa ni dictature fi la bokk injustice. xam nga tey xam nga tey ma wax la benn affaire boo nee dictature nangam nangam nii kiti naa yaa ngi dégg. Euh, mun nga bañ a àgg foofu sax dangay naan yaay jàmme lii la def ak lii dañu dafa toog foofu yaa ngi dégg. Mm-hmm. ñu ne dafa am ñoo xam ne dafa laa na téye woon ci comme loya Ousseynou Daabo bi mu doon jàkkaar loolu daf ko néewal doole dafa doon néewal doole aadama Baro lool lañu wax am na wala amul mm-hmm. waxuñu ni euh, yaay gàmme nañ dem génnee ji ko fa parce que dafa doon néewal euh, loya Ousseynou daabo mu tëj ko ci mm-hmm. kaso bi aadama Baro bii gañe ko mu ne ko gañe wooma léegi loya Ousseynou Daaba bi mu dugal ci kaso bi moo gënoon a tax Afrique jóg pour xeex ak moom ah. kooku dafa bàyyi ba élection yi jub si mm-hmm. laa wax de élection yi jub si ñu jël ko dugal ko ci kaso bi léegi élection yi dafa ñëw ba jub nii nii son ko ñu jël ko dugal ko ci kaso bi. Mhm. léegi ñoom li ñuy euh, léegi ka kan moo demoon intervenir dimbale ji Gàmbi kan la. du Macky Sall. léegi leçon bi eh, leçon bi ñu doon jàng Gàmbi ca école ba ca Gàmbi ak leçon bi ngeen bi ngeen bind nii lan moo leen wuutale. Mhm. loolu laa lay laaj. lan moo wuutale leçon yi. leçon bi ngeen di def nii. kooku Loya Ousseynou Daabo la tudd moo doon patron aadama Baro aadama Baro du patron bi nii ñu dencee Sonko ñoom jamaay fay kenn jéngu jël réew ma noonu la demee yaa ngi dégg léegi Loya seenu Daabo dañ ko dugal ci kaso bi te dafa waroon a bokk ci élection yi mhm. yaa ngi dégg mhm. affaire bi jaxasoo après euh, mbootaayu Afrique yi mhm. daan ni comme Sénégal ñoo gën a jege na Sénégal dem régler loolu ak Yaaya Jàmme léegi yow lu tax nga régler yaayaa jàmmee ci lan loyaa Ousseynou Dabo mhm. léegi pour pourquoi ñu teg Ousmane sonk Ousmane Sonko dama lay laaj boobu ba léegi soo laajtee Macky Sall mu ne amul ak man problème koo laaj mu ne amut ak moom problème xam nga ñun mhm. xamal ban ban ban affaire lañu ñu war a njëkk a lijjanti waaw Ousmane Sonko kan amal problème mhm. moo ma jaaxal de waxal ma ne ko moom a jaaxal. waa léegi ba pare ba pare ba pare ba pare Ousmane Sonko buñ ko bëggee téye ba muy wacc ay deret ak di waccook lu nekk mu dugg si léegi Ousmane Sonko dafa rey nit wala. déedéet. ah lan la wax xalaatam la wax. am na wala amul. Mhm. ak bëgg bëgg réew mi. te réew mi xoola kenn donn ko xam nga xal moo kat moo moom réew mi. Mhm. réew mi ñun ñu ngi soxla ku jub. soxla ku ko mën a yor soxla ku ko mën a développer soxla ku xam ne da ngay wàcce sa bopp ba tolloog nit ñi nga yor réew mi waxal mais réew boo ko yoree nga jël nga xoola est-ce xam nga yonent yàlla Moussa bi ko yàlla di yónni si Firawna est-ce que xam nga lan la ko wax dafa ne ko euh, euh, euh, dafa ne ko boo demee na nga wàcce sa bopp parce que Firawna kilifa la du dëgg est-ce que xam nga yonent yàlla Muhammad bi ko yàlla du yónni si nit ñi lan la ko wax dafa ne ko da ngay wàcc sa bopp pour message bi jàll. dëgg la de booy boo simmiwul sa mbubum daraja nan ngay jiitee ay nit. Mhm. xoolal Sonko dañoo jëlale léegi naan ay aji saar ay nangam yuñ ko toppe ay nangam yuñ ko sàcc xoola topp euh, kii euh, na ko sàcc portable lañ ko jàppee nee nañ. nga Ousmane Sonko est-ce dina sàcc portable. wax dëgg yàlla. waxal téye biñ ko téye fële Sébikotane. muy dem hôpital di fa nekk téye bi mu ñibbi këram ak mu toog si bi xutaan lan la leen di yàqal. Hmm? waxal parce que Ousmane Sonko day déranger. xam nga yàq. xam nga lay yàq. lan yàq xam nga tey jii boo bëggee nguur ba mu ëpp ah. yaa ngi dégg. Mm-hmm. doo do xoola doo gis sa doo gis sa défaut ba pare usmaan Sonko nguur gi li mu ko ëppee doole est-ce que bëriwut. Mm. bëri na de xoola man ñi ma gisoon yëpp ñu toog si nguur. dañuy toog dañuy topp ko xam ni na bi muy topp yonent yàlla Moussa xoola Moussa amul fas Moussa amul gëléem Moussa amul soldaar amul dara si la topp ba nguuram daan benn nit la topp ba nguuram daan li ma gëm ni Ousmane Sonko dina nekk président dam léeg-léeg dama koy natt ci histoire Moussa te histoire Moussa ku ñu ko nettali président bi moo ñu ko nettali de. waaw waxal rek. Mm. munoon ngeen teg kasetam sax. <laughs> comprendre nga li mu la wax. léegi mu topp bi ñu topp nii Ousmane Sonko est-ce que di delloosiwul histoire Moussa ak Firawna mhm. tey jii ñun ñëpp ay sénégalais lañ ñun ñii ñëpp justice moo ñu ëmb. Mhm. ñun ñii ñëpp xoola kenn du kilifay kenn mais dañoo bëgg réew mi dox moo tax kenn ku si nekk da dañuy am daf ñu teg ay nit ci kanam ne nañ leen topp. Mhm. waxa rek. dama ne. jaañaar eh, kenn du kilifay kenn mhm. mais bëgg réew mi dox a tax ñu wan la ne la jaañaar mii kat xam nga man tey dañ ma indi fi liñ Dakar indi fi ngóone mhm. nañu jaañaar mii kat moom émission bi ngeen di def moo koy diriger mhm. su neel su la laajee na nga wax su nee la noppi na nga noppi léegi yow nga ñëw boo ma laajee ma wax boo ma laajul ma wax waaw wàcc nga yoon waxal léegi du yow doo wax sa xalaat hmm. man du wax sama xalaat ba pare yow yor yow nga yoraat émission bi dolli ci hmm. du ma wax sama xalaat ngoone du wax xalaatam ngoone bu waxee xalaatam nga tëj ko man bu ma waxee sama xalaat nga tëj ma kenn du wax seen seen xalaat est que mun na nekk loolu démocratie réew moo xam ne kenn du wax seen xalaat ba pare xoola ay Pape Alé Niang ay euh, ka euh, nit dof ñooñu yëpp xanaa am la ñooñu ñëpp mënoon nañu bañ a agsi fii hmm. est xam nga loolu Ablaye Wade si boppam Ablaye Wade est-ce que xam nga dadaa ministre bi yoroon euh, ministre bi yoroon euh, benn ministre bu ko damay bañ a wax turam. Mhm. nee na Ablaye Wade daf ko woo guddi. mu ñëw fekk si ko mu tiit ndax guddi gi mu ko woo. mu ne ko lan moo dal réew mi. Ablaye da ko ko wax de. mu mhm. ne ko lan moo war a dal réew mi mu ne ko mais réew mi damaa dégguma dara yëngu. te réew dafa war di yëngu. Mhm. nee na réew dafa war di yëngu yow mars da réew Abdoulaye Wade dafa ne ko demal nañu mars nañu wax seen xalaat ci la ñuy xamee ñun pour mën a liggéey réew mi mais réew mi dafa toll foo xam ne kenn du wax seen xalaat xoola wal fajiri barki démb ñaata lañ ko jox mooy hmm. xelu président. xoola xoola wal fajiri xam na ñaata lañ ko jox. université bi ngeen di kaas nii yéen boo leen xoolee si wal fajiri doo leen kaas xam nga lu tax. télé yu bari cent million lañ leen jox. am na yenn site internet yu ñu jox quarante million moom ñu jox ko vingt millions. li ngay wax nii moom mooy aide à la lañ ko jox. booy xoola am na président bu ko daan def xam nga no noo daan def dama koy wax fii yaa jaame daanaka def bu toogee fii comme Bakaw fii ñu def élection kenn sànni lu ko fi ñu mu fii ñu gañe ko fi danaan dem leen kooku jox leen courant duma leen jox courant. te yow yaa jiite dëkk ba. wa déet waaw. yaa ngi ci dëkk bi mujj gi télé yi nekk meuble laa la wax nii doo ko taal. léegi nguur gi ma gis nii tey bu fekkente ni ñoom nee nañ liggéey nañ dëggantaan nit ñi nekk ci ay jafe-jafe xoola Joal Joal barki démb ab loxo moo fa feeñ tax gisuñu jëmm ji. Mhm. loxo barki démb nit lañ dugal ci benn kër ba pare taal kër gi nit dee mais li ñuy def nii ñuy wër ci dëkk bi naan dañuy sécuriser dëkk bi ak affaire yooyu dëkk boobu dëkk bu ndaw la lu tax munul am munul am munul am sécurité. mais mais mooy Ousmane Sonko ci feebaram bi bu demee bay perte connaissance feebaram bi nga bëgg a garaaw de ah. dafay garaaw kay. wàccu sax miin nañ ko ci feebar. mais dem bay perte connaissance maanaam sa xel mi. booy xam naa Ousmane Sonko même boo ko bàyyi woon mu dem këram jàpp nga ko. nit ki munul nekk ba pare li mu nekkoon di ci liggéey nga ne ko tas nañ ko amatut am na wala amut mhm. jàpp ci moom téeméer ak nàngam booy ki lay yow mi ki lay dàq bu la jotut bu jàppee sa njaboot jot na la waaw su ma la doon dàq jotuma la ma ja ma jot ma ma ma si yoon wi sa doom mujjee ginnaaw ma ne ko ciix jàpp naa la gaynde yi sax da ngay gis documentaire yi nag yi dañuy rëppatal daw bu jàppee doomu nag bi nag bi day taxaw di xool doom ji mhm. yow sa yaram day daw mhm. tay ji Ousmane Sonko tay ñu ko jàppulit jàpp nañ ay doomam comprend nga li ma la wax mhm. ba pare feebar bi euh, hôpital ngir yàlla ak yonent bi ñun dañuy ñaan ñu gën a tuuti ci réew mi parce que ñu gën a réew bi xam naa ni ñu gën a mag ci réew mi duñ ñu déglu ñun mhm. est-ce xam nga lool mhm. xeeb nañ ñu jàppee nañ seen bopp yàlla xanaa xam loo réew Sénégal ñu gën a mag ci réew mi du ñu déglu ñu gën a tuuti ci réew mi mais dama lay wax benn affaire gis nga martu mooy daaneel étage te ci biir étage lay fanaan mhm. léegi comme dégluwuñ ñu damay lancer message bi rek dañuy ñaan yàlla ngir yàlla ak yonent bi Ousmane Sonko ñi ko jàpp nañ ko bàyyi mu dem ñu nekkaat ci beneen wax te mhm. préparer élection yi d'accord Ngoné yow itam ban jàngat nga am ci euh, ah. kàddu yi nga xam ne journaliste bi yëkkati ko di Alé ak Pape Alé Niang ak aussi propos yu euh, kii di nga jimboor yi est-ce que am nga ceeg moom wala da nga koy controverser ci li mu wax ci affaire Ousmane Sonko bi man lan moo ma jaaxal lépp ci jaañ naar parce que Ousmane Sonko grève de la faim bi nga xam ne moom lay def parce que de la faim bi nga xam ne ne teguwul ci yoon mhm. moom lañ leen jàppee ba yóbbu leen foofu ci kaso prison jigéen bi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci liberté 6 mhm. dama yaakaar ne nit ki boo ko toppee ça fait des yow nga ne nga desuud nga partem barricade nga ko mhm. lu nekk teg nga ko ci viol nga commencé viol ba ci vol yow jàppoo nit ki ci viol jàppoo ko ci menace de mort nga mujj koy jàppee ba ci ba ci vol teg ko jàpp ay nitam jaaj jàpp ay ñooñom ak képp koo xam nga ne wax na mi ngi wax ci micro waxam fasaa nga yaakaar ne Ousmane Sonko la àndal nga jël ko ne ko ràpp teg ko ci kaso bi mais Ousmane Sonko moom mi lekkul def grève de la faim lu tax muy wàccu moom mi nga xam ne lekkul di def grève de la faim kon lan la lekk bay wàccu ba pare ñeneen ñi nga xam ne ne ñoom lay jàppale ñu nekk ay jigéenam Ousmane Sonko lii nga ko dal ci feebar bi moom mu toogaat defaat grève de la fin tëdd feebar lot ana ñeneen ñi daan def grève de la fin ñi nekk ci deux voies ñi nekk ay jigéenam ñoo j'espère que dala dalu leen ñëpp grève de ñee la faim la ñuy def ñii grève de la faim la ñuy def mm-hmm. ñii di ay jigéenam entamé li nga xam ne mooy grève de la faim ba Ousmane Sonko mën cee taxaw jàppale leen kon léegi dama yaakaar ne ñee def grève de la faim ndax xiifal ndax du xiifal lan moo tax Ousmane Sonko lottee noonu te ñi nga xam ne ñoom ñooy ay jigéenam te jigéen gën a fragile lan moo tax ñoom dégguñu ci benn rumeur wala ñoom dañoo arrêté seen grève de la faim lan moo tax dégguñu ci beneen benn rumeur ci ñoom ñu ne ñoom sonn nañu wala mm-hmm. lottu nañu wala dara mm-hmm. dafa am leen loo xam ne ne gis nga boo koy xool sax doo xam nan nga ko war a waxee te euh, yëf yi ci boppam moo nekk loo xam ne lu doy waar la yow topp nga nit ki ñaata at di ko jàpp lu ne nga teg ko ci deram. lu ne dañoo dem ba santé wu Ousmane Sonko. waaw dama yaakaar ne ñoom lu ñu bëgg mooy. Ousmane Sonko Ousmane Sonko dama yaakaar ne daf leen di perturbé. Ousmane Sonko dafay yàq seen vie Ousmane Sonko bu ñu ko bàyyee parce que boo xoolee njuuj njaaj yi am ci réew mi. Mhm. dugal tànk génnee loxo defante yii nga xam ne ñoom ñi leen topp wala seen i njoñ opposition yi nga xam ne ñoo fi nekk nga xam ne amuñu fitu di ko wax wala li ñuy gis ci réew mi di ko doxal Ousmane Sonko dong moo fi am fit pour wax ko moo tax ma ne xanaa looloo tax ñu bëgg a làq Ousmane Sonko jant bi ba élection yi jeex nga xam ne amalatu leen benn njëriñ ñu door koy ñu door koy génne. gis ngeen sàcc parrainage yi ci réew mi tëriande yi ci réew mi kaay ma jox la cent mille kaay ma jox la deux cent ma abal ma sa carte d'identité abal ma sa laissez ñu ciy sàcc ak ci def ay njuur njaaj gis nga hmm. dama yaakaar ne gis nga réew bu jaaree ci yoon réew bu tegee ci yoon réew bu lépp tegee ci yoon yaakaar naa ne kenn du forcer nit macha allah comme ni ñu koy wax ne Sonko dañ ko jàppoon ci waa affaire Adji Sarr ne corruption la daan def mais ñii di sàcc téléphone euh, carte d'identité jàmbur yi ñii di sàcc ay yëfi jàmbur di ci ut naan xale kaay jox ma lii ma jox la sa carte d'identité wala jox ma 200 ma jox leen hmm. kon ñoom xanaa defuñu corruption ñoom lan lañ leen war a toppee xam nga lan la nañu bàyyi Ousmane Sonko ci coono gii mu nekk nañu bàyyi Ousmane Sonko mu ñibbi dellu ci këram dellu ci ay njabootam yow tas nga partem ne nga ko bokkatoo yow bokkatoo kay wax nañ la ko te Ousmane Sonko li mu leen génne woon mooy bokk tey ma teg leen tey ma sasine leen tey ma topp leen ba mu saf mën leen mhm. nee nga Ousmane Sonko bokkatul kay kon bàyyi ko mhm. bàyyi ko mu génn toog ci réew mi mhm. parce que bu génnee toog ci réew mi du leen arangé ndax Ousmane Sonko tey day xool li nga xam ne moom say seen seen faiblesse di ko wax di xool seen i mbóot li ñuy teg di ci teg tànk li ñuy def di lal ay ndigg sërëx yooyu nag kooku di leen dénoncé di wax seen i mbóot di wax li nga xam ne arrangé wu leen moo tax Ousmane Sonko arrangé wu leen te du leen mës a arrangé moo tax ñu jël ko teg ko fee mu teg ko hôpital doomu jàmbur di feebar muy souffrir nekk ci ay coona def grève de la faim ñu barricade këram yeneen ak yeneen ñu def ko ndax loolu am na benn politicien boo xam ne mës naa dund loolu ci àdduna amul ndax politique jar na lii jàpp nit barricade buntu këram jàpp ay jabaram fekk ko biir këram humilier ko génnee ko façon plan bu nekk ñu jël ko tegal ko ko ba kooku feebar tey ba tëdd hôpital hmm. lott mën a nekk ci ay coono nekk ci ay jafe-jafe nga ne doo ko bàyyi lii tamit pour lan la xanaa lan ñu bëgg ci Ousmane Sonko man laa xamul ndax boo nee Ousmane Sonko amut ak euh, gouvernement bi problème koo wax mu ne la jàpp ma koo wax mu ne amul ak moom problème justice la amal problème kan mooy justice. mais ngoone bu yàggee ak moo fi toogal justice. bu yàggee que du kaddu Sonko yi day ñëw parce que Sonko waxoon na ni ñii. li ngeen foog lañ bëgg ci man moo gën a tuuti mooy kon ni prison moo gën a tuuti ci ñu bëgg ci man ñii sama bakkan bii sax buñ ko mënoon jot dinañ si jot. ah mais mais bu demee kàddu Sonko yooyu noonu euh, est-ce que ñëwul egsiwul. ah mais boo xoolee tamit jaaj naa danga naan kon kii Ousmane Sonko kàddu yooyu mu doon wax. Hmm. loolu dëgg lay doon parce que Ousmane Sonko nee naa la c'est un visionnaire. dafa bokk ci visionnaire yi nga xam ne yàlla suñu borom moo leen tànnal boppam. Hmm. Ousmane Sonko lépp lu war a ñëw ci moom da koy xam lépp lu war a ñëw ci moom da koy xam ba ci tey jii li xew si wit te xamoon na ko gisoon na ko mais loolu moo ko a def tey li li mu doon parce que xamoon na loolu parce que lu tax mu ne ñii lu ñu bëgg ci man kaso ci gën a ndaw mais jàpp nga nit ki kaso feebar na yeneen i tolof tolof tolof yépp li nga xam ne moo ko dal ci kaso bi naanaa kooku nga mën koo bàyyi jéggal ko ay jabaram génn ñaan askan bi génn ñaan gis nga li fi jot ci réew mi rayante nañu ñaata bakkan ñoo fi daanu xale yi jàkkaarloog force de l'ordre yi mhm. rayante bi am ci réew mi lii lépp en tant que njiitum réew nga xool sa économie réew mi ngi daanu tolof tolof yi say doomu réew mi ngi daanu ndax lan benn nit te benn nit boobu nga xam ne partem bi mu amoon teg ko mooy Pastef parti bi mu doon taxawal nga dem désoudre partem xanaa boo tasee sa parti ne ko yaayee toog doo dem xanaa kay nga war a bàyyi nit ki. Hmm. mu nekk ci jàmm. mais doo xool après doo xam affaire bi lu muy nduru te Ousmane Sonko koo jox mu ne la jotewul ak man justice la joteel justice la amal yoon kan mooy justice ak ñan ñooy doxal justice. tamit nañu xool tamit nu mu gën a rafetee ñu